dem seeti ka parce que moom laa fi gis mu def fi social boo xam ne teg naa ci sama bët gis naa ka comme dama jóg ne damay jàppale jigéen ñi kon man moom laa war a taalal loxo parce que gis naa ka mooy jàppale jigéen ñi ci lu bari soo gisee nag lii ñu taxawal ka dañoo dëkk caaray juddoo caaray yaroo caaray gis na jigéen ñi toog fii ñëpp kenn huit heures du la fekk sa kaw la jigéen ñi fi nekk ñëpp dañuy xëy dem di liggéey di daan doole ma tàllal loxo nag pour ñu jàppale jigéen ñi ci ay financement bi ma demee aw mi jàppale ma ci boole ma ak rakkaam baax ju ñuy wax as ñu taxaw ci loolu mu ne ma numbe li nga bëgg ci caaro yi dinaa la si jàppale bu baax a baax a baax mouvement bii nag taxawaluñ ko lu dul pour jàppale jigéen ñi suñu dëkk bi am développement boo xamante ne nii ne dinañ mën a takku liggéey yëkkateendoo doorandoo àndandoo nekk benn ñun ñëpp frontière lañ ko commencé ba côté ñeex bàyyiwuñu kenn ñëpp lañu woo ñëpp lañ taalal loxo ci ay financement pour jigéen ñi takkul liggéey développement lañ wax fii si caaro yi parce que damaa gis ay temps suñu yaay yi dañ daan génn di dem si aji jóor jóob di fa adrien pour dem màkk wala dara yooyu yëpp mën naa am caare parce que ay liggéeykat ñoo fi ne ay jàmbaar ñoo fi ne ay jigéen lañu lu ñu jéem bu ñu àndee bokk ndey bokk baay dañ koy man te awa mii dafa taxaw pour jàppale ñu jigéen la joo xam ne dafa bëgg dafa bëgg jigéen dafa bëgg a jàppale jigéen caare. yaa ngi ma tey jàppale ma di la ci gërëm di gërëm Alsaan Diallo bu baax a baax a baax di wax ne mënuma leen a fay yàlla na leen yàlla fay. di wax ne caara yi tàllal nañ suñu loxo ñëpp jigéen ñi caara yi tàllal nañ leen loxo ñëpp tàllal loxo góor ñi tàllal loxo tamit mouvement gaal bi nga xamante nii ne Saybatu Jóob nekkoo su lu social jàppale nu social di ñu jàppale ñu liggéey am ay financement te awa nekk suñu ginnaaw waruñoo ragal dara fi mu ne waruñoo ragal dara nan takku liggéey am ay financement gëm suñu bopp gis nga mu gëmee suñu bopp lay am Pikine am Dakar am fu mu mën a doon mm. day am caare parce que caare yaafus nekku fi jigéen yu am jom ñoo fi nekk jigéen yu am fulla ñoo fi nekk jigéen yu am fayda ñoo fi nekk kon ñun ñoo mën a defaral suñu bopp suñu dëkk nañu tàllante suñuy loxo ji nag wax ji nag du gudd day gàtt may ñaanal ñi nga xamante ne nii ñoo bàyyi seen ab liggéey ci suba ba tey ñëw fii toog di jàppale si liggéey bi di gërëm bas sama rakka sama goro sama xarit mu sonne ci bi dañu gërëm bay tiir dañu gërëm tam sama équipe bii nga xamante ne nii sama waa bureau bii nga xamante ne nii ànd na noo man di liggéey liggéey bu rafet bii. ici à l'école Mame Malick pour lancer le mouvement du social dirigé par Adjan Doumbé Diop. Adjan la situation des femmes à Tiaroy et le développement endogène, après pris toutes les initiatives grâce à l'appui et au soutien de M. Alassane Diallo, qui l'a euh, conseillé d'aller dans le sens du développement de Tiaroy-sur-Mer avec toutes les femmes, plus de 50 euh, groupements de femmes réunis et dans Tiaroy de l'Est à l'Ouest, pour que Thiaroye aille de l'avant dans sur le plan socio-économique. Ndoumbi à appelé toutes les femmes de Thiaroye-sur-Mer dans son mouvement pour que au niveau national et international que le soutien soit mis sur pied pour qu'elles puissent aider les femmes de Thiaroye-sur-Mer et que le développement endogène tant, tant attendu par la population de Thiaroye soit mise à jour. Donc nous remercions tous ceux qui sont venus, nos honorables invités, et surtout l'honorable invité euh, euh, Madame Awagnan, euh, honorable Awagnan, que nous remercions, euh, Ndoumbe remercie vivement, et Thiaré-sur-Mer vivement. Tout ce qu'on est en train de faire dans ce mouvement, dans la solidarité et dans l'union des cœurs, c'est que pour Thiaré émerge, parce que Thiaré n'a jamais été en retard dans ce développement socio-économico-culturel de cette région de, du Sénégal. Donc euh, nous disons, euh, unissons-nous. Les euh, femmes de Thiaroye ont répondu massivement à l'appel de Adja Ndoumbegueye, un appel qui n'est pas un, un appel qui n'est pas qui n'est pas bien entendu par la population Euh, thiaroyoise, surtout les femmes de développement à Thiaroye-sur-Mer. Nous savons que les, les, les femmes de Thiaroye-sur-Mer sont de braves dames qui se lèvent tôt le matin pour se battre dans les marchés, qui se battent pour le, que l'économie thiaroyoise aille de l'avant. Donc Ndombé a pu les rassembler, a pu les conscientiser dans cette démarche qui est une démarche positive parce que nous savons que le développement actuellement, ça commence par le développement endogène. Le développement endogène est inclusif de toutes les femmes de Tiare-sur-Mer et, et, et, et, demandé. Et je pense qu'autour de Ndombé, toutes les femmes de Tiare-sur-Mer s'y retrouvent pour ce développement de cette commune si chère à cette population. Donc l'appel de ce lancement du mouvement le 25 euh, février 2024 du mouvement gay social qui est bien reconnu parce que euh, Ndoumbe Gueye étant euh, euh, euh fille de cette, euh, de cette localité qui très connue dans ce mouvement, qui est très connue dans ses actions sociales, a toujours les femmes dans la discrétion et dans l'humilité et dans la modestie.